alhamdulillahi xataa yarda wasalaatu wasalaamu ala nabiyi almurtada sayidina muhammadin wa ala alihi wa saxaabatihi dhawi tamkiini wa rida wa man tabiahum bi ixsaanin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 fu ngeen mun di nekk ci àdduna bi rekk maa ngi leen di booleeti juróomi baat yi ñu yàlla boole mu gën a tedd gën a sell gën a sakkan doy walis bépp nuyoo te benn nuyoo mënta doy walis ko ñu tibbee ko ci suñu xol jëme ko ci seen jëmm yu tedd yu sell yi muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di leen ndokkeel di ndokkeel suñu bopp fu ngeen mun di nekk yéen jullit ñi di topp waxtaanu fajar bi rawatina ñi nga xam ne dañ koy partagé ci seen groupe yi waxtaan wu jot rek am na ci ñoo xam ne danañ ko yóbbante yónnee ko lu ëpp ay téeméeri téeméeri groupe ñoo nga tamit séddalewaat ko ci yeneen i groupe ñu koy tasaare ba yàlla xam fi mën a yegg loola de aw wu rëy la ñu koy sonnee yal na yàlla fay leen yiw wu kawe seen njortu fay ci yiw suñu kilifa gu baax gi nga xam ne kenn mënu koo fàtte gi ak taxawaayam ak taxawalam Mawlaaye Sidi Mouhamadul Amin ñaas mi nga xam ne xiiw yëpp moom mooy soqeekuwaay ba ndax mooy cosaanal ci lépp rekk ca wàllu liggéey ba kon nag yàlla nañu ko yàlla fayal yiw yàlla beesal yërmandeem ak ngërmandeem ci moom sotti ko ay xéewal ak i teraanga ba mu ne man daal soxlaatuma xanaa ñu ma cay sedd laay wax ñu ma cay sedd sax sedd danaa leen ko sedd ba ñoom dañ taxaw ne soxlaatuñu xanaa ñun ñooña ñun cay sedd lañuy seet te yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla defal defal ñu ko ñun ñépp bi barakati sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallama waxoon naa la ci wàllu jàkka yi dafa ci am yoo xam ne dañ koo war a sorile néega néega yàlla bu tedd bi di jàkka gannaaw bi mu moomee lépp gedd na ko moomalañu ko kon la mu moom te moomoo ko war nañ ko ko delloo ba mu mat sëkk ca wàllu waawa li mu moom te moomoo ko nag du dara lu dul jàkka yi ak jumaa yi moo tax mu ngi ñaax di dëxal ngëneel lu rëy ki yàlla dimbale muy fexe di góor góorlu ba taxawee jàkka yooya ci jëmmam ci alalam ci dooleem moo xam ci alalam ñi tabax jàkka mu yëkkati dooleem def ko ca mu yëkkati alalam def ko ca loolu yiw rëy la ndax mbooleem dërëm yi ñuy fere ci wàllu yàlla yëpp boo ko calculer juróom-ñaari dërëm la am na ci dërëm yooyu dërëm yoo xam ne ci dépense la jëm am na ci dërëm yi dërëm yoo xam ne faj ku feebar la jëm am na ci dërëm yi dërëm yoo xam ne lebal kuy leb ca jëm am na ca dërëm yi dërëm yoo xam ne tabaarakallaahu ku buuma gàcc laxasu nga làqarti ko ci moom ca la jëm xam na ci yoo xam ne ku nekkoon ab jaam nga bëgg ko jënd pour goreel ko ci la jëm waaye dërëm yooyu yëpp ma wax ak yi ma waxul am na ran bu ko yàllay faye ba mooy ñaari dërëm dërëm bi jëm ci jàkk yaa ko jël def ko ci jàkka nañ ma ci jëndal ciment wala fer wala béton wala nañ ci jënd ndox ak yi ca xaju rek wala mu jëm ci daaray alquran yii ñaari dërëm boroom xam-xam yi ne nañ amul benn rang bu ko yàllay fayee million ñaari million ñaari milliard déedéet boroom kay yàlla fa koy sotti yiw ba mu ne doyal naa rek waaye yeneen ci ci des yëpp benn bu ci nekk xam ne rang bu ko yàllay fayee kon mbooleem dërëm yi ñuy am di ko jaamoo yàlla ñaari dërëm a ci ëpp doole ci jaamu yàlla mooy dërëm bu jëm ci jàkka te yàlla tax mbaa dërëm bu jëm ci daaray alquran te yàlla tax moo waral yonent bi sallallahu alayhi képp ku tabaxal yàlla néeg doonte dafa doxati xeebu ba mel ni tàggam pitax bu ëllëgee yàlla dana la tabaxal néeg ci aljana am beneen riwaay boo xam ne da koo nakiraal sax nekkul fa di ko wasaf dafa ne rek ku tabaxal yàlla néeg nu néeg néegoo moo xam boo ëllëgee yàlla tabaxal la néeg ci aljana boobu xadis ba dafa ne man bana lillaahi masjidan yabtagi bihi wajhallaahi banallaahu lahu baytan fil janna ku tabaxal yàlla jàkka ci kaw suuf jubluwuloo ci ngistal jubluwuloo ci tiitaru jubluwuloo ci ndégg tal su ëllëgee yàlla dana tabaxal néeg ci aljana mooy bu ëllëgee aljana ngay dëkk rek xadis boobu buxaari yu solo na ko ak imaam muslim ñoom ñaar ñoo solo xadis bi kon xadis la boo xam ne xamul lenn jenn wax ju ko gën a wér ci kaw suuf gannaaw alquran lu ko gën a wér xamut ci kaw suuf kon boobu dafa ne rek baytan baytan bi nag comme nakir la noo manee rek xam na ci ñoo xam ne néeba ngaa joxe ciment néegu ciment kese am na am na ci ñoo xam ne fer rek nga joxe am na néegu feer kese c'est suuf nga joxe tamit nañ ko ci def néegu suuf rek am na boo jëlee ndox tamit nga ne moom laa cay def tamit nii yu ñuy defaree ndox di ko takkal ak ciment bi tamit am na kon noo manee rek ma nga ca banaa lillaahi baytan tamit dugal na xamuloo xaalis boo joxe waaye yow yaa ñëw fa joxe sa doole bët bu set bu gaay xëyee nga xëy buñ gontee nga gontu surna ya nga ca man te loola xam nga boo ko doon fayee ko mën naa tabaxam néeg ak nu néeg ba mën a néegoo su boobaa tamit bu ëllëgee yàlla tabaxal la néeg xam riwaaya boo xam ne nag dafa ñëw di wane ne ba même bu xeeboo ba mel ni tàggam pitax waaye xam ngeen ne ñaar téeméer man man moo ëpp na ci tàggam pitax kon donte ñaar téeméeri dërëm nga yëkkati def ko ci néegam yàlla sax xiw wa yàlla du la ko xeeñ ëllëg mën na laa juralam néeg ci aljana waxuma la nag ka joxe junne wala mu joxe ay ñaari junne wala mu joxe million wala mu joxe nangam ak nangam ak nangam loola la muy am ci yiw yàlla rek xam ni mu toll. kon nag beneen riwaaya bi sayyidatuna Aïcha moo ko génnee jëlee ko ci yonantu bi yonantu bi ne man banaa masjidan laa yuridu bihi riyaan wala sumatan banallaahu lahu baytan fil janna imaamu tabaraani yu moo solo bi ci awsat yonantu bi ne ku tabaxal yàlla jàkka jubluhut ca ngistal jubluhut ca ndéggtal waaye da koo tabax rek li wajhillahil karim boo lëggee yàlla tabaxal ko néeg ci aljana kon nag tabaxal yàlla néeg ci àdduna am na doole lool kon nag suñu jàkka yi suñu jumaa yi buñ ci xaar kenn buñ ci yaakaar kenn ñenn ñu ne fañ dëkkee seen jàkka ja seen jumaa ja nañ ca yaakaar seen bopp ndax yàlla fum la def dafa bëgg luñ fay war a def nga def ko fa li tax mu def la fii dafa bëgg luñ fi def nga def ko fi waaye yàlla samp la fii nekkal la fi bëgg luñ fi war a nekkal ngay wuti ñeneen ñu fa nekkut di fa nekkal loola xel sax nangu wut ko te yàlla nag ñenn ñu ne fa mu leen nexal lam bëgg ñu nexal ko fa def na ko fa ci ay xéewal moo tax alquraan wa qaddara fii aqwaataha fi arbaati ayaamin sawa li saa'ilin ñenn ñu ne fa leen yàlla installé ñu nekk fa rek installé waale na fa xéewal goo xam ne lépp lu ñu war a mën a taxawal maga fa moo xam yoon la moo xam dëkkuwaay la moo xam waruwaay la moo xam dunduwaay la moo xam leneen lu mën a doon yàlla du neexal kenn fenn fu neexul dara fu la neexal rek ne nekk laa leen na fa lu la fa mën a neexal boo fa nekkee nag yaafus ba bëccëg wax rek nekk ci gaara place yi. fu mu tasee nga dem ci geneen nekk ci commentaire yi nekk sol mbubam politique mu dul jeex wala ngay xam ñooy politigal doo taxawal dara eh waaye àdduna bi si dund na jeex waaye doo fi def dara ndax yàlla defal na la ko ba pare waaye yaa jugul def effort pour mën koo jëriñoo waaye boo góor góorgóorloo rek mën ko faa def kon nag jàkk yi jumaa yi buñ ci yaakaar kenn nañ ci yaakaar suñ bopp yonent bi bi mu demee madinatul munawwara njëkk muy def dara même kër gim jëm sax ñu war ko faa dalal mu kër abu ayubal ansaar yi laata gëléem nga di fa dem sax ah, gëléem nga dafa njëkk goor ci jàkka ja ba mu xeggee foofa goor ci la yonent bi ne haahunaa manzil fi mooy wàccuwaay bi su ko defee nag ci la laaj kan moom moom place bi sama gëléem ki gooroon ñu ne ko ñaari jirima ko moom kenn kaa ngi tudd sëhlu kenn ki tudd suhaylu moom duy ga maanaam dafay gàtt nga tafaawul waaye nag du gaaflu mu ne ñii de seen tur yi jàppandi rek lay tekki kon de place bi danaa jot ci lu jàppandi ci la ñu xool leen ñu ñëw ñu ne ko ñun jaayu ñu ko dañ koy joxe àddiya li nga fi def yi yiw la te ñun soxla nañu yiw yonentu bi ne déedéet man duuma kilifa goo xam ne luñ ma jox ma jël déedéet xam nga àddiya joo xam ne borom waaju ko dafa métti xaj yoo xam ne borom sóoraale ko dafa métti waaye xaj yee yoo xam ne xam nañ ne sëriñ diwa ngi ñëw ñu préparé ko ba mu ñëw door ko koo jox loola lu jàppande jàppande la amoon na génn góor gu baax sëriñ Fallou ture yal na yàlla yokk leeram bu mosaan na dem luuma ku dajeeg moom jox ko àddee du ko jël mu ne sa àddee préparé ko ko xamoo ne man danaa ñëw ba ngay préparé lee ngir jox ma ko kon nag jëlal loola loola mooy maandu loola mooy fegu loola mooy sàmm sàmmoo moo tax kon sëriñ yu bëri nañuy bàyyi xel ci àddee joo xam ne borom préparé wu ko de da koo bett rek mu kot koti ñëw jaali ko jox la ko la gën daal dellooxaat ko ko rek te ñaanal ko yàlla yonent bi nag bi ko gaa yi ñaar ñi joxe àddee juñ préparé wut mu ne ko déedéet dafa mujj jënd ko ci alali Aboubacar Siddiq ñu jaay ko ko ci jëggu maandu yonent bi jënd ko tabaarakallaahu ñu tabax fa jumaam jooja ñi ko doon évaluer ñu ne fukki dinaar la ko jëndee. gi géej gi jamono am na riwaaya bu ñëw nañ ñeen fukki diinaar su ko defee kon lu ci mën a am da ko gënd waaye jëlu ko ba mu paree bañ ba nga xam ne place ba leew na dafa woolu waa ansaar ak muhaajiruuna yi ñi rëdd jàkka ja mu ne nañ ci xëy moom dafa daan xëy di henn jumóol bu gaa yi xëyee def dem na am na ci am na ci bis boo xam ne sax baaraamam ba dafa doon nàcc yonent bi jàkkaarloo moom di wax ak moom ne ko benn cër nga ci sama cër yi sa nàcc gi mënta tax mënta teree ma def jëmi liggéeyam yàlla bi waaye mooy ca jiitu de kon tamit tabaxam néegi yàlla yi na ca kilifa yay jiitu waaye nag bu kilifa yee jiitoo ci tabax yu kenn xam ay sato tabax yoo xam ne néeg yoo xam ne dañ koy seetaan wala tabax yoo xam ne dara delluwu ki ci ngërmande yàlla boo ca bëggee ñaax nit ñi du sotti loo bëgg a mën a ñaaxe mbaa nga cey digle danga nga jiitu yonent bi dafa caa jiitu rek ñii dem yi ay xet andi ñii dem jëli xobi tàndarma yi ga gor ko andi moom lañ defee woon téeg ma maam xalifa ne taxawaayu nit la doon toll booba booba booba jàkk ci su ko defee kon loolu moom lañ njëkk a taxawal ci jàkka yonent bi sallallahu alayhi xoote ko taxawal ci jàkka jooja buñ xëyee xëy yaakaaruñ ci woon kenn ñoom ñooña ñoo ko taxawal seen bopp fa seen doole tolloon ba yàlla dogal jàkka ja mel nam war a mel tabaarakallaahu ñuy commencé da ca julli diirëb li soob yàlla ci lañ nekkoon di ca julli su ko defee kon nag loolu moo doon noonu lañ ko doon tabaxee kon Ibrahima mii bi muy tabax jàkka ji di yëkkati fondation bi wax naa la ko yaakaarut woon ci moom moom moo ko defaral boppam lam man la ko defee naka noonu tamit boo seetee euh, Quraysh biñ koy bee salaat yaakaaruñ ca kenn ñoom ñooña ñoo ko tabaxal seen bopp. dañoo waxoon ne sax duñ ci def benn xalal ju xaraam liñ ciy def lépp xalal ju leew lay doon Abdullah ibnu Subayru naka noonu ba koy def tamit yaakaarut ci woon kenn kon nii la demee ndax wax naa la kaaba gi démb wax naa la ne fukki yoon lañ ko tabax malaakay yi ñoo ko njëkk tabax tabax Adama ñëw tabax ko Siisa ñëw tabax ko ah, amaliquuna yi tabax nañ ko. yonentu yàlla Ibrahima ñëw yëkkati fondation ba ci tabax ko foo seetee euh, euh, bi ko bi ko defee li mu yëkkati ko defar ko ñu koy continuer di ko def si ñëw tabax ko dégg nga euh, loolu lépp mu ngi mën a am boo seetee fi ko yonent bi salaatee fi ko yonent bi kon yëkkatee xajrul aswad ngi teg ko fa gannaaw ñoom Qudus bi ñu ko beesalaatee ak fi ko yonentu yàlla Ibrahima tabaxee woon diggante bi junnee at la ak juróom-ñaari ak juróom-ñaar fukk ak juróom tabaxab yonentu yàlla Ibrahima bi ak beesalaat ak Qurayshi fekk yonentu baa ngi xam fanweeri at ak juróom. distance bi bu ñu la ko laajee soriwaay bi mi ngi nekk ñaari junne at kon laa bëgg a wax ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom mooy distance bi gannaaw si gi ci la Abdullah suba Zubayru ñëw di ko tabax defaraat ko moom bi mu koy tabax mi ngi tolloog juróom benn fukki at ak ñeent ci gàddaay gi juróom benn fukki at ak ñeent ci gàddaay gi la euh, diggante beesalaat ak Qurayshi ak beesalaat ak Abdullahi ibnu Subayru soixante-dix la juróom-ñaar fukki la ci seen moom moo dox ci seen diggante kon nag waaye ñii ñëpp tabaarakallaahu bañ koy def yaakaaruñ ca kenn xaaruñ ca kenn ñoo ko defal maanaam seen bopp euh, yaakaaruñ ca kenn ñoo ko defal seen bopp ñoom ñëpp kon nag ñenn ñu ne fa leen yàlla teg lañ fay war a tegal yàlla buñ ci yaakaar kenn nañ ko góor góorlu ñu jéem koo defal seen bopp dangay xool yonentu bi jàkkam ji tabaarakallaahu rëy gi mu rëy li ci haju lépp waaye terewut ba mu koy def yaakaarul ci kenn lépp lépp lépp moom ak ay saabaam ñoo ko defal seen bopp kon nag seen seen jumaa yi le yéen ñi may déglu ci àll bi bu leen fi nekk naan dañuy xaar jumaa yi procès wala da fi nekk naan dañoo bëgg a xaar nit ñi dimbale ñu dañoo bëgg xaar nangam ak nangam jumaa ak jàkka dara lu dul benn néeg te dëkk boo dem yàlla xéewal na leen ay néeg a fa ne waxuma ay néeg waaye ay kër boroom kër yëpp boo leen laajoon kenn ku ci nekk yëkkati loxoom ne man am naa kër ñu ne ko waaw sa kër gi ñaata néeg a ci ne mu ne xaw ma ko parce que man am naa néeg sama yaay am na néeg sama aaw bi ba ci sama séet bi ñëpp am nañ néeg sama doom yu góor yi am nañ néeg am na ki ñu am soxna am nañ seen néegu bopp. xattaa sax ngooñ mi man mi nekk ci àll ba sama néegu néegu ngooñ am na am na ci ñoo xam ne seen ganaar yi xam nañ nekk muy ay ngulu boo ñëwee fii ci teeru bi kenn ku ci nekk am ngay néeg am ci ñoo xam ne ñu ngay luwee néeg ya ngir rek desal ñu waxuma seen seen seen doom yaag seen soxna yaag seen yaay ya waaye seen seen oto ya sax am nañ néeg muy gaaraas ya yow nga tabax ba tabaxal sa oto bi gaaraas néeg bu muy fanaan sa doom yi sa soxna yi sa waajur yi ba nga desal di di di luye tabax ay étage nga def ko sa morom def ko yéen ñëpp ngeen war a bokk sos sot bennam néeg waaye waaye waaye bu néeg booba tabaxuwut dëggu leen wala seen gëm yàlla ak seen pas-pas ki diine moom manqué waaye seen seen gëm yàlla seen pas-pas ki diine bu matee rek wax dëgg yàlla tabax ni booba du nekk ci dara loo xam ne lu jafe lay doon kon nag nañ koy bàyyi xel buñ ci yaakaarati ci kenn mag ñi fi ne woon seen jumaa yi fi ne yëpp ñoo ko tabax ñoo xëy xoote mbubam maanaam mbubam suuf mi xoote xool xool xooli xëy rek xoote rëdd ma xëy rek xoote teg peer bu njëkk ba lu waay man jàpp ca lu waay man def ca ba jumaa ja wala jàkka ja mel nam war a mel waaye biñ fi yaakaaree jumaa yi procès yeeg léegi jafe-jafe buñ am ca loolu la dikkee ndax ku la manal conditionnel la mënoo ca dara léegi-léegi ñu ñëw manal leen ko ñu leen kon nag du fi wasifa léegi-léegi ñi manal leen kon du fi jàng ay léegi-léegi ñi manal leen ko ne jàkka ji heure sangam lañ koy tijji heure sàngam lañ koy tëj doo ca mënoo mënoo ca dara nga koo manoon te defoo ko kon ku ko man ni yow bu la ko defalee lu ko neex dong moo fay dox kon nag nañu ragal yàlla li ñu yàlla jox dénkuñu ko nañ koy nangoo jël di ca di ca sédd yàlla loo bëgg a xam baat dang cay nangoo def waaye ba def jotee nangoo def dara dara di su lu wax nga commencé tàllal sa làmmiñ wi karkari du jariñ dara wa anfiqu mimma jaalakum mustaxlafiina fiihi waaye waaye lii ma wuutal leen ki seen alal yi fa ñum nekkoon rek ñooña baxe ko fi mu ñëw ci yéen dangeen ngeen fi baxee ko mu jëm ci ñeneen defal leen ci yàlla bala ngeen fee baxee ko waaye boo dee dugg sa biir bàmmeel baxi ñaari laaj laaj bi nga baxi gannaaw mooy lum bàyyi laaj bi nga fekk sa biir bàmmeel mooy lum indi soo fit ñàkkee fayda ba li nga bàyyi gannaaw xëpp li nga indi pertement dikkal na la xoolal ma jàkkaay yonantu bi ni mu yaatoo ci ay meetar bañ ko dolleegut waaye saxaaba yeeg la ñuy néew néew doole yaakaaruñ ca kenn dem xare ji rek suñu ñëwee tabaarakallaahu la ñu xam ñu def ko ca jàkka ja rek ba jàkka ja koy taxaw booba jooja jamono jàkka ji métarage bi mi ngi la doon jox junney meetar ak ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom moo doon métarage bi jàkkaay sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam booba mën ngaa wax ne lii la tolloon ci ay meetar te lii lépp yaakaaruñ ci woon kenn ñoo ko tabaxal seen bopp ba lii xamee Seydunaa Omar ñëw dolli ko mooy ki ko njëkk a dolli gannaaw yonantu bi moom ci boppam rek dolli na ci junneey meetar ak téeméer boppam rekk ak saaba ya jëggaani wuñ fenn dara gannaaw si gi mu génn àdduna naa Usmaan ñëw dolli ko. Seydina Ousmane dolli na ca ñeenti téeméeri meetar ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn gannaaw si gi wëlit ñëw dolli ko moom nag dolli na ca ñaari junney meetar ak ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent gannaaw si gi Mahdiyu ñëw dolli ko dolli ki ñaari junney meetar ak ñeenti téeméer ak juróom fukk lii la ci defoon. booba keno yi nga xam ne ñoo ko taxawee rek téye ko téeméeri keno la ak ñaar fukk yu ko taxawee yi nga xam ne nag dafa nekk waaye feeñut junney keno ak ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett boo jëlee euh, yaatuwaayu jàkka ji lépp dafa lay jox fukki junne meetar ak ñetti téeméer ak ñett ci ay meetar lii moo fi nekkoon. gannaaw si gi nag ci la alu saxoon ñëw ah, ñoom yokk nañ ko ay yoon seen yokk bu njëkk bi ñi ngi ko def maanaam mu ngi nekk année junne at ak ñaar fukk ñeent ci gàddaay gi moom lañ moom lañ ko def maanaam waaye li lañ ci dolli bañ ñëwee dolli nañ ci juróom benn junne juróom benn junney meetar ak ñaar fukk ak ñeent ci ay meetar mooy yokk gi nga xam ne moom la ci àllu saud yokk bu njëkk ba juróom benn junney meetar ak ñaar fukk ak ñeent loolu la woon boo ko jëlee yokk gi yëpp nga boole kook la fa nekkoon lépp dafa lay jox fukki junne ak juróom benn téeméer fukki junney meetar ak juróom benn téeméer ak ñetti eh, maanaam fukki junne fukki junne mètre ak juróom-benn téeméeri junné ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar loolu la doon jàkk jël boo ko jëlee maanaam carré lool loolu lay jox booba gi seen yokk booba booba nag keno yi dafa gën a bëri keno yi nekk ci miir yi rek matoon na juróom-benn fukki keno ak ñeent. su ko defee boo jëlee yi nga xam ne mooy feeñ matoon na ñaari téeméeri keno tabaarakallaahu ak ñaar fukk ak ñaar ci ay keno yoo xam ne ni téye na ko boo jëlee gudd ñaayu miir bi dafa lay jox tabaarakallaahu euh, téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ci gudd ñaay kon lii lépp ñoom ñoo ko defoon waaye ànd ak loola lépp. yaakaaruñ ci woon kenn ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko defaraloon seen bopp di dem di dem tey ba yokk gi nekk fa di yokk goo xam ne mooy yokk gu gu gu gu mujj gi actuellement mu nekk fa ba léegi loola nekk na loo xam ne te mooy Malik Fahad bi mu ñëwee ibnu Abdul Aziz tàmbaliwaat ko ci beesal ga loolaa ngi tolloog 1403 booba nag yaatuwaayu jàkka ji ñim taxawee nii xéexée lu rëy rëy la mooy la fa nekk ne nga xam ne fëxat ñëw na beesalaat yokku ko mu nekk ah, booba seen papa moom bi mu ñëwee rek yokkaat ga dafa nekk fukki junne meetar ak juróom benn junne ak juróomi téeméer boo ko jëlee carré bi loolu lay jox gannaaw yokk gi ah, Euh, Fahad ñëw moom nag def ko taaxam étage def ci suuf ak ci kaw euh, liggéey boo xam ne bu am am solo la booba nag dafa gën a bari mat na juróom-ñaar fukki junne mètre ak juróom-ñeent junne yu kaare loolu la matoon loolu lay toll su ko defee boo jëlee kaare bi ni nga koy nat ci ay mètre dafa lay jox. juróom ñett fukki junne ak ñaar ci carré bi ci jàkka ja nga xam ne kon jàkka la joo xam ne rëyaay ga yàlla rek moo ko xam lim mën a jël tabaarakallaahu ci ñu fa mën a julli ci niñ ko defaraatee lu bëree bari la mën naa jël ñaar fukki junne nit ñu fa mën a julli ak juróom-ñetti junne ci ci taaxam suuf mi rek nga door a jël nag taaxam kaw mi yokk ko ca loola kon nekk na lu bëree bëree bëree bëree bëri. Euh, taaxam suuf mi taaxam kaw mi loolu la mën a jël taaxam kaw mi rek mooy jël loolu ñaar fukki junne ak juróom ñetti junne taaxam suuf mi ña fa mën a jullee yëpp dégg nga ah nga dafa mën a mën naa nekk million ak fanweeri junne ak juróom ñaar ña fa mën a jullee ca kaw teraas ba ca kaw a kaw juróom-ñeent fukki junne nit mën nañ faa jullee loolu kon boo ko boolee yëpp kaw ak suuf ak kaw ga ak ca kaw teraas ba ñaari million mën nañ fa jullee ci jàkkaay yonantu ba ak juróom fukki junne ak juróomi nit ñaari million ak juróom fukki junne ak juróomi nit actuellement ñoo mën a julli ci jàkkaay sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te kenn du yàqal sa morom dara kon nag jàkkaagoo ak jàkkaay yonantu bi sallallahu alayhi kon nag suñ jàkka yi buñ ci yaakaar yaakaarati kenn nañ ko tàmbali ak suñu néew doole yàlla ñëw mottali ko ci am dooleem nañ ko tàmbali ci suñu ñàkk yàlla mottali ko ci ak xoomalam buñ koy tàmbali nag kenn ku ne na nga mënee rek na nga ko mën a lee jàkka yàlla ji ni la yàlla mën a lee daal na ko mën a lee jàkka ji waaye yàlla may la ay milliards ngay joxe million santoo yàlla yàlla jox la ay million ngay joxe junne yàlla jox la ay junne ngay joxe ay mille francs yi ki téeméer moom daal ni la yàlla manalee rek manalee ko ko tamit ci néegam yii ndax néegam yii ku ca man yaa ca man ndax moom néegam yi la seede ne ña koy dundal ci seen wàllu di ko dundal ci seen wàllu doole di ko dundal ci seen wàllu jëmm ñoo ñaay ñi gëm yàlla moo tax mu ne innama yaamuru masajidallaahi man amana billahi wal yawmil axiri wa aqaama alsalata wa aata zakata wa lam yaxsha ila allah fa asa ulaika an yakunu min al muhtadina suratu tawba aya 18 boo demee ko ci fekk fukk juróom-ñett kon nañuy bàyyi xel ci loolu ni la yàlla manalee manee ko ko ci jàkkaam jile ni la yàlla cëralee na nga ko ko cëralee ci jàkkaam jile dëkk bu bëgg a tabax jumaa june ñafa yàlla hubbi ca dëkk ba buñ ca buñ ca defee nañ ca nañ hubbee ko ña ca tegu tegu ca ñaamu dara yëkkati seen kartan dem di ko joxe ji di joxe móol joxe ciment aka joxe suuf soppeeku ay mineebar balaa yàgg rek tabax ba pare waaye tabaxal ñun kenn ku ci nekk loo néew néew sax yaa ngi ñee ngi tabax ay étage ñi tabax ay terrasse ñi tabax ay gablin waaye waaye loola lépp buñ boolee xajut ci bennam néeg wax dëgg yàlla suñ waxalee suñ bopp dëgg loola xajut ci bennam néeg te nag néegu yàlla yi tabax ci yonentu da cee wax xadis bu am doole abi hurayra moo ko génnee mu ne àlla adullukum ala maa yamxu llahu bihi alxataaya wa yarfacu bihi darajaat qaalu balaa yaa rasulallah qaala isbaaxu lwudu ala almakaarihi wa kasratu alxutaa ila almasajidi wa intizaaru salaati bacda salaati fa dalikum ribaatu fa dalikum ribaat hadis la bopp muslim solo na ko ak imaamu tirmisiyu yonent bi ne du ngeen ñëw ma tegtal leen loo xam ne su ngeen ko defee yàlla effacé seen bakkaar yi du ca xem yëkkati seen daraja yi saxaaba yi ne ko soxla nañ ko mu a jamonooy sedd njàpp nga xam ne kuy def yaa ngay korkor yi doon nangoo jàpp ngir sedd ga léeg-léeg nga tojle sax ne tojle wuma ngir bañ jàpp ngir sedd ba wala léeg-léeg nga garde sa njàpp lu yàgg ngir bañ a jàppi xaat ngir ak sedd ba mu ne fa mu gën a seddee nga nduuru ndox mu sedd mi jàpp njàpp lu mat sëkk sëlmu ba ma mat na loxo ya mat na raxas tànk ya mat na koro koro ya mu ne loolu ku ko def yàlla effacé say bàkkaar yëkkati say daraja ak bëri looy jéegu di baagante rek jëm ca jàkka ya suñ noddee fajar nga dem tusubaar nga dem takkusaan nga dem timis nga dem geewe nga dem ñaari julli yi ñoo gën a jafe ku ko julli ci mbooloo kuy am naa fekk du ko man mooy jullee geewe ci mbooloo ak julleeg fajar ñaari yi koo gis mu fonk ko boo dajee moom rek mën nga koo seedeel ne kii duhut am naa féq waaye dëkk boo dem ña fa gën a tële jullee fajar gën faa tële jullee gee ñooy naan ñooy naan ñooy naa féq dëkk ba ku leen rey rek naa féq jeex ca dëkk ba maa la ko wax te yonent bee ko wax waaye kon gis nga ko foofu dundal jàkka boole na ci ñiy seen daraja ji yëkkatiku dundal jàkka bokk na ci ñey seen bakkaar di effacé wu kuy jàpp jullee tax kuy julli fu gën fu ñu koy defee mooy dem ca jàkka yaa gën ku ku dox jëm ca jàkka rek. ala kulli haal nga xam ko tànki dem yaag dikk ya si peeku bàkkaar yëkkati ko waayu ja nga julli ba pare di xaar naa naafilewaat wala nga teel a dem di xaar balaa julli gee jot li nga toog loola lépp yonent bi ne fandu la mooy xare jot nga taxaw place ya gën a dansé ña koy xam la ñuy xam ci payoor teel a dem di xaar julli gii moom tamit yool bu day noonu da nga ko xam te demoo fenn boo seetee yonent bi juróom-ñaar rek la mos a lim ne bu yowmal qiyaamee yàlla dana leen keral ca keram ga jamono ji nga xam ne ker xamudul keram ga juróom-ñaar yooyu ba mu leen lim bokk boole woon na ci nit koo kam ne xolam ba dafa xaju ci jàkka nga xam ne bu bu waxtu wa jotee ma nga ca jàkka ja bu génnee maanaam tamit xolam baa ngi ci jàkka ja wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajidi su ko defee koo xam ne xolam ba dañ koo xaj ci jàkka rek yooya kon xam na solo. am na ko koo xam ne tamit xolam ba dafa xaju ci jàkka kon yooyu am na doole am na solo nañ koy bàyyi xel bu baax a baax a baax am na ci solo fonk jàkka yi di ci def xalal yi di ci def doole yi di ko dundalee timit ci jëmm yi dëkk bu nekk la leen yàlla wërsëgal ci ay tool bu dee àll bala sax yàlla sa gël leen ko ci seeni jur ya wallaahi buñ ko nangoo jaay defal ca yàlla ñu bokk ko sot loo ko ci kenn ku ne ni nga manee jàkka ju ñu mën a sémbu lum rëy rëy rëy dana mat waaye nag buñ koy sémbu ñii di duus duus lu mel ni xar mu ñuy bëgg a rendi yàlla jox la wërsëgu bëree bëree bëri ngay duus duus luy joxe ñaari téeméer rek yaay ñaari junne kii million te yàlla ak la jox ay millions yu dul jeex ngay arrière mel ni xar mu ñuy bëgg a rendi bu la ñëpp toppandooree jàkka ji du mat loola baaxut. na la yàlla nàkkalee rek nàkkalee ko ko ci néegam bii te loo jox yàlla yàlla dana la ko delloo wa maa anfaqtum min shay'in fa huwa yuxlifuhu ndax huwa xayru raasiqiina yàlla ne na lu ngeen joxe ngir moom mu wutalal leen ko mag ñi ne wërsëg ñett la xam na lu nekk ci ténk xam lu nekk ci conco xam lu nekk ci mbagg mbagg mi ay milliards a ci ne conco yi ay millions ci ne ténk ay junnee ci ne ak i téeméer boo joxee junne ak téeméer ya nekk ca ténk ya millions ya rempli wu ñëw ci ténk li milliards ya ñëw rempli wu nekk ca conc la nga joxe millions ya su ko defee tamit milliards ya nekkoon ca mbagg ya wàcci wàccoon ca ténk wàccoon ca conc ya mooy mujj wàcc ca ténk ya ah waaye nag bu la yàlla xajalee noona jël junne yi def ko ak téeméer yi def ko ci ténk yi jël milliards yi def ko ca mbagg ya jël millions yi def ko ca conc la nga ne duma joxe junne yeeg ñaari junne yeeg millions yi millions ya duma ko joxe millions ya du xàjjee ko milliards ya du xàjjee ko da gën a xaju rek lii koy xajji saan wii moo koy xajji waaye nag boo ko defut nag dafay gën a xaju kon ñàkk saan wi moo koy xaj maa la ko wax boo ko xajjiwut ci joxe junne ya million ya du xàjjeeku milliards ya du xàjjeeku waaye dafay gën a xaju waaw waa dootu xamati ci mbagg waaye milliards ya dafay mujj dem ca kuru gannaaw wa nga xam ne sa loxo mënu koo jotati dootoo ca jotati de million ya tamit mujj dem ba ca sa wetu ndungu la dootoo ca jotati mukk bu ko defee nag mu des fa nag euh, tabaarakallaahu kayit ya moom muy junne ya ak ñaar téeméer yaa ngi ca xaju dem ca conc la ténk la nag weccet ya des ca. ah soxla boo xam bu dee dana faju tamit dana mel ni weccat mooy ñëpp koy yëg bu ko ñëpp yëgu du sotti moo tax joxe weccat wóorut bu ñuy laaj ci wàllu yàlla nga ne joxe weccat joxeel nangam delloo ma nangam ah sa xaajo mën naa faju de waaye bu faju tamit ñëpp dañ ko yëg waaye ñu ne eh, laaj ci yàlla nga joxe ay këyit eh, bokk ko kenn yëgu ko foo mën a ne lu la mën a song tamit dana faju te kenn du ko yëg kon nag anfiqu mimma razaqnaakum min qabli an yaatiya yawmun laa bay'un fiihi wala xullatun wala shafaatun wal kaafiruuna hum xaalimuun suratu baqara nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax li ñu yàlla sédd nañ ci nangoo séddale loolu la yàlla tagg na joxe kat yi de mimma razaqnaahum yunfiquuna la wax de waaye amul fenn fu mu ne mimma razaqnaahum yumsikuuna léegi nag mimma razaqnaahum yumsikuuna moo bari de waaye mimma razaqnaahum yunfiquuna bëreetul de bëreetul dara. ku la mujj juddu gën laa bëgg a xalal xalal ji moo ko gënal bakkanam bi dagale ko ba mu bëri bari mu gas ko ba mu xóot taxaw ca luy wut ci xalal ji bu ca mënta jot moom lay jot mag ña nag dañ daan dagale xalal teg ko ci benn bool walla teng-teng su ko defee xenu ko lu leen di wut si dal ca kaw xalal gi ñoom ñu mucc moo tax ji jamono ah ndaw yi dee ñoo gën a bari mag ñiy dee ndaw yi feebar ñoo gën a bëri mag ñiy feebar ndaw yi xamee ay jafe-jafe yu kenn xamut ñoo gën a bëri mag ñi ko xam lu ko waral uy maa rasaqnaahum yumsikuuna ji rek moo ko waral ñeneen nag uy maa rasaqnaahum yunfiquuna kon nag nañ ci bàyyi xel bu baax a baax jàkka yaa muy néegu yàlla yi ak nañ ko war a fonkee ci yëkkati suñu xalal di ca def yëkkati suñ ñaq di ca def boole ko di ñukki ñukki tamit di ca def boo lëggee bu ñu dee ba ñu tëral ñu ci buntu jàkka lu ñu seede jàkka ja validé ko ne dëgg la maa fi neel yàlla te li ngeen wax ci moom yëpp xam naa ko man mii ñi ma taxawal moom ci la bokk ñi ma daan taxawee moom ci la bokk kon nag tey ma taxawee ko fu mu mënut taxawee boppam loola jël saalal alal ji la yàlla sédd def ko ci wàllu yàlla moo la ci mën a dimbale waaye léeg nga dem ci quartier boo xam ne ni kër yi rafetee R plus 10 ñi am R plus 4 R plus 20 waaye boo demee ci jumaa ji rek sa yaram daw dal baa ngay bëgg a daanu moket yaa nga moket yi kenn xamul lu muy niru jàkka jeer kenn xamul lu muy niru ci ñaawaay muy tekki ne ñii niñ fonkee seen kër yi nga xam ne du dara loolu ay néeg di tekki ay néeganiku dañ fiy néeganiku rek léegi te ñu dem fonkee ko seen bàmmeel yañ war a dëkki ëllëg te mooy dëkkuwaay bu mujj ba ndax benn dof dafa mës a ñëw tiim ndakaaru gis état si mu rafet lool mu ne billaahi ñi man la ñuy wax dof waaye ñi a dof ñu ne ko nuñ dofee mu ne di tabax ay armeel di bàyyi ay kër yi ñu tabax yëpp armeel rekk la euh, kër ya dëgg-dëgg mooy bàmmeel ya te tabaxuñ ko kon yooyu kooku boobu dof de xam nga du dof de dof la ca nit ñi de waaye nit piir la ca yàlla kooku nag kon ay waxam lu jar a bàyyi xel la kon nag jàkka yaa ngóog nañ ciy bàyyi xel. Euh, Euh, di ci bàyyi xel di ko liggéeyal jàkka yaa ngoog nañ koy liggéeyal di yël suñu xalal di ca def ngir def ko tamit ngir ak jaamu yàlla bu baax a baax a baax jàkka nag dafa am tabaarakallaahu yu muy bañ ci xeeti ay sobe ak i salte eh, am na ci yoo xam ne xisiya la am ci yoo xam ne maanawiya la euh, boo ma toppee suba nag euh, jàkka yeeg li ci aju mooy nekk suñu bopp darsu bi danaa la wax ni ñu war a setalee jàkka ci sobe yu feeñ yi ak sobe yu yu nëbbu yi ak nit ñi nga xam ne yàq rek kenn war ta jël kàddu jàkka di ko teg ci seen ci seen loxo fu ñu nekk fu ñu nekk indi fa coow fu ñu nekk indi fa ay problème te ñooñe sax boo leen laajee bañ commencé matal julli sax yàggul mbooleem koo gis bu indi jàkka coow rek ba mu ba mu commencé matal ay farataam yàggul ko gis ñaareel ba mu commencé ñëw jàkka tamit yàggul moo cay gën a bëri su ko defee def ko ay commission di ko dundee rek. lu ngeen wax ci ñiy defal jàkka yi lu ngeen wax ci ñiy liggéey jàkka ji lu ngeen wax ci liggéey jàkka ji rek ma ne ah, dañoo war a nag soppi kàddu ga dañoo war a wax ne lu ngeen wax ci ñiy jéem a liggéey la liggéeyal jàkka ji waaye bu leen waxati lu ngeen wax ci liggéeyal jàkka ji xanaa jàkka ji du mat nag ndax loolu la ñuy wax ren bu déwénee moom la ñuy waxaat gannaaw déwén loolu waaye bàyyi leen wax jooju kon di wax ne lu ngeen wax ci ñiy jéem a liggéeyal liggéeyalu jàkka ji kese waaye bu leen waxati lu ngeen waxati ci li ñuy liggéeyal jàkka ji déedéet euh, kon nag mbir yaa ngoog ah boo ma toppee suba ma benn bennal la ko ah, par noonu ba ñu xegg ca incha allahu wa axiru daawaana an alhamdulilah rabbil wa wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.